جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أخرجه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم wala yawmayn illa rajulun kaana yasuumu sawman falyasumhu axrajahu albuxaariyu wa muslim Sidna Abu Hurayra may Allah tabaraka wa ta'ala be pleased with him narrated that the holy prophet that the holy messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam said when the month of Ramadan comes the gates of Jannah are opened and the gates of hell are closed and the Satans are chained Bukhari and Muslim he Abu Hurairah ta'ala narrated <clears throat> also that the Holy Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam said Do not fast a day or two. Do not fast a days ahead of Ramadan, except for a person who is in the habit of observing a particular day, a particular day's fast. He may fast. Bukhari and Muslim. the hadith of the Holy Prophet prohibits us uh, the fast of a day or two before the beginning of the month of Ramadan. For example, the month of Ramadan is going to begin this Monday, so we cannot fast this Saturday and this Sunday, except for a person who used to uh, fast every Saturday and Sunday, for example, or every Monday and Thursday, for example. in the last two days, or one of the last two days, happens to be one of those habitual days of fast for that person. Therefore, that person is accepting. That's why the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْ Except for a person who is in the habit of observing a particular days fast he may fast it allahumma barik lana fima tabaqa min sha'ban wa ballighna ramadan wa taqabbalhu minna bi barakati alqur'ani alkarim wa hurmati alhabibi sallallahu alayhi wa sallam